gis seen ñoom dañu war a xam ni li leen di def nii pour ñoom la ak mën a doon rek war nga mën a bàyyi sa ay yitte gis la ràññee la xàmmee la itam ndaxte bu leen jëlee nominé lañ c'est pas parce que dañ toog un bon jour rek nominé leen donc euh, defe naa ni lu gënoon rafet mooy képp koo xam ni bokk nga ci nomination yi nga war a gañe wala nga war a ñàkk ñëwal nga teew mu mu mu mu rafet ci gis-gis parce que nag amul lu dul ñun ñu ñuy jox ay trophée ndax trophée day yokkul nit ki kon nag man maa ngi leen di woo ñoom ñëpp di leen di wax ni leen pour une prochaine fois euh, li leen di defal nii pour ñoom la. kum ci mënti doon rek bu ñu la nominé na nga sa ay yite nga ñëw wuy si moo gën a nice. alors euh, comme ni nga ko waxee nee nga da ñëwaat jël li nga moom euh, bu ko yàlla bu ko yàlla dogalee. <laughs> alors ñu gis ne am na yeneen émission euh, talk ci ñëw tamit bëgg a jël li nga xam ne mooy trophée bi fan nga teg confiance bi. ci liggéey rek ak ci retour Sénégal yi man à chaque fois damay jot ay retour yoo xam ni daf may forger daf may gëmloo suma bopp boo toogee génn fekk benn prisonnier bu génn di la xaar ci biti pare ni la détenu yëpp yow la ñuy seetaan nga dem ci benn hôpital ñu ne la malade yëpp yow la ñuy seetaan di ma yónnee ay video ay malade yu toog di ree ba kontaan donc loolu daf may daf may am lu may yokk quoi moo tax ci luñ ma boole ma gëm ko ak ma ñàkk ko gëm même bu ma ko ñàkkee damay xam ne je fais partie des meilleurs kon bu ñu la nominé rek déjà tu fais partie des meilleurs mais booy dem di wut ci dara da ngay ñaan yàlla may ko man gëm boobu laa am depuis ma nekk bas moo tax ma gëm ni bu ko yàlla dogalee war naa ko mën a jël ñeneen ñi aussi c'est de très bonnes émissions néew ma leen li ñuy def naa naay sul néew ma leen kenn seetaanu leen mais xam naa ni ma lañ gën see quoi. <laughs> man ñuy huitième édition Raaya Music Awards bi daaw nominé woon na woon ren tamit pareil tey en tant que koo xamante ni aussi porte de voix xamante ne ni ñoo waa mais dañuy am euh, satisfaction euh, di di leen rafetlu seen liggéey bi ñun deux ans yi passé lañ ci joto lañ ko jot a xam yàgg dañ ko dégg mais bu ñu nominé tey euh, defe naa ni plaisir la donc ñoom dama leen di remercier comme je l'ai dit tantôt di leen ñaanal jàmm ak sutura di leen wax ne li ñuy def defaluñ ko lu dul culture sénégalaise ndax raaya bo moom mooy sax parmi wala duñ sax par bi moom mooy bi ñu gën a ràññee ci Sénégal donc kuñ ko jox ku ne xam ngeen ni artiste bu ne jël na ko donc kuñ ci nominé ku ne rek ndaanaan nga jàmbaar nga kon fierté la ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp jàmm wax dëgg euh, euh, ni euh, ñi xam ne ñooy anima animateurs yi ak animatrices faral di ay musique dañuy def ay dégrégation Euh, yëkkati euh, euh, man de maa koy nuyu di ko siyaare moom grande dame bon mënoon na citer peut-être parmi yenn artistes yu bañ na ko ba dama dama am ci nu may doxee man soo ma ni ma Kheucha dama la bëggoon jox xaalis bi pour nga invité sama nit ñi ngi may seetaan ay caméra ñoo tàkk dama naan la artiste boobu du tax sama émission man soxlawuma xaalis pour promouvoir kenn man je le fais à ma à ak selon sénégalais yi ni ñu koy bëggee ñoom danga may woo laaj ma ma xool ni ma ko bëgg ma def ko pour ne pas vraiment euh, euh, euh, di ko di ko wax ni loolu noonu nekkul ci man mën naa ko wax mën naa ko prouver ay ci ci ci ay anam mooy que man sama émission du chaque jour la même chose laay teg lundi damay mardi damay def live mercredi damay def rétro jeudi damay ñeneen la koy wax